KMC ak Banjul dañ war a am mayor waaye su moyee KMC ak Banjul ci biir Gambia am na one hundred and fourteen wards one téeméer ak fukk ñeneenti gox yoo xam ne téeméer ak fukk ñeneenti gox yi fu nekk war na am lu ñoo ooyee councillors waaw soo léegi téeméer ak fukki euh, ak fukk ñeneen ci gox yi war naa am fu nekk war naa am benn kansulo te ñun ku nekk ci sa gox yaay sànneel kansulo bu la neex su dul loolu Banjul moom ak si dañooy am meyo soo woot si dañoo am kansulo soo ñii ñooy ñi nga xam ne nii ñun suñ amee suñ soxla si ñoom la ñoo dem ñoom ñu jàllale suñ soxla yi ci higher authority yi maanaam ñoom tamit ñi leen paree kaw su ko defee ñun suñ soxla yi nag ñun ñii ñoo ko dee mun a xam directly parce que soo amee jafe-jafe sa gox balaa moo dem fële yow ñi nga dëkkal ñoo ko njëkk am te moo nekk a woot si ku nekk am na ci benn mooy fi nga dëkka kon dafa mel ni local si am na solo lool ba mel ni seen jàng mi ni seen jàng mi amee solo noonu la local government election wala local authorities amee solo soo foog naa ne li ñu wax ni set na te leer na loo baaxoo nekk bi am na njëriñ suñ jaaxal bi amee njëriñ. thank you very much. ba si tey suñ góor yi jàmbaar leen torop sax xoola Ablaye moom dafa sonn sax bàyyeewul ñu gaadin bi de déedéet layal na leen yàlla fay defal ma fii ndox amin yaara bi amin waaye nag suñ góor ñi suñ meloon ne yeneen góor walaay duñ sonn lay dëgg waaw waaw ne suñ xëyee ñëw si naaj rek ñu bokkaa ñoom nekk si naaj bi lay dëgg waaw waaw Mm-hmm. man de tey teel bu ma rootee dama fekk mu wow koo te yow ma gis ne sa ndox mi ngi set wecc foo rootee sa boppi koñ bële laa ko rootee jéegi enu soona bay bugga dee moo ma jaaxal waaye soo ko waxee rek dama day am lu ma métti am lu ma naxari suma xol bi jeex na dañoo enu paan yi di enu suwa yi xale yi gàddu pot yi di indi yëppul coono waaye nag na jombut élection bii di jublu si nii mm. nga xam ne nii si sis la mm. ak mee yooyu xëy na ñaaxul suñ leen sànnile ñu dimbale si ndox laaj bi tànga de yow bi ñu sànnee karta daf di tey yow bàyyi loolu xoolal gi nga su weer bi deeyee ah. sigil su weer bi deeyee maaj waaw avril si ñeneenti fan yi weer bi taxaw nii ci deeyee fan weeri fan ak benn mm. nga am benn fan ñaar ñetta ñeneenteeli fan mm-hmm. la dem sànni gi leen karta pour lan waaw mun na def suñ kàddu xëy na suñ leen sànnilee mm. du jomba dina indi wéeceeku wéeceeku baasin xoolal pax yi ndox yi amuñ fuñ jaar mhm. baasin xoolal suñ teen bii dafa ñëw tilim lampi mbedd maa ngi ni ma bunti kër ga lampi mbedd maa nga fay mhm. fukki at a juróom suñ leen waxee suñ leen sànni le dinañu ko toppatooyal ah seetal Mariama ngi nii wàcce suul mhm. ñëw fii doo jombul suñ ko gisee muy def li dinañ ko dimbali suñ baa nga yeeg suñ jaxatu yi xoolal suñ batanse ba kay yëpp ñor na xoolal supam bi ba naka la ñoree ak kanja bi dinañu defaral marché fuñ dem jaayee jee waaw moo jël ñu enu koy sàkki suñ bunti kër yi duñ am fuñ jaay fonde bi du dinañ ko defar ba mu baax ut ay balekat hmm? ñëpp di ko bale dana feebar dina daf fee génn sax mbaa marché bi dina am wanag yee bétti dina am wanag am ku ko bale am ku ko raxas bi am ku koo fompa yëpp laa am am sax pompe suyoo suñ tunda bi fii suñ kuuru kaara gi jéem a wecceeku wecceeku ñu bokk si nit ñi ah karta gi am na njëriñ de torop te suñ karta mooy suñ doole ah suñ karta nga ne on the fourth april kenn du ma ji dee yeneen ci fan ya foo dencoon sa karta na nga ko génnee fu ma dencoon génnee suñ góor yi sax jiital ñu ñu dem waaye may maa dinaa bi yee dama ut ko wax nga dëgg ut ko de ñoo ñoo ñool duut kon naa leen ne kon naa leen ne mu xat na xamoo tus ñool tus xamu la ko kaat affaire baa maa bëgg a neex nag jëlal kaat kaat noo waxati duur na ñaari yoon da nga for booye da nga for da nga for noo jëlal rek nga saaf kaat si joxal joxel ma feyeku tus xamu la ko saafal booy ma door la jëlal ñaari ñëwal rek ñëwal nga dama gis ni saan carte yi dajaloo nii rek suma xel ma dem ci suma suma voters card dajale ko rek saaf moom mun a fayee ko nii la em voters card ba lan moo yëfi voters card pour lan boy election passé na election jeex na lii lay bañ a dégg lii lay bañ a dégg nag ne ma election passé na bañ sa annulé présidentielle élection ak député ci la pare ci élection jeexal si tak la def boy safal card ci ma fayee fekke da nga bañ ma fayee ko ndox waxa loolu waru la présidentielle élection jeex élection yi député jeex nga pare ci du noonu. lu te luy tere. présidentielle élection ak bu député njëriñ la mu am la njëriñ la la élection bi am njëriñ élection bi njëriñ loola la am. Eh, benn benn ndax bii dégg may ma rek dama wax ba pare. mooy benn élection gënu ta am solo bu présidentielle ak bu bu. léegi juum nga nag. Ah. ndax kat sa karta mooy sa doole. Ah. na loolu leer. Mm-hmm. karta gi moom mooy sa doole te danga war nga cee mën a woote. boo gisee ñuy sànnil mayo yeeg kansul euh, yi carte hmm. maam ma jox la misaal ban marché yu bees ñu tabax hmm. ñu ca ah boo koy nag moom kansul seeg maam bu yi nga gis ci réew mi hmm. ñu naan kër sàngam day ndox maa ko ah? ñu ñu ca gën municipalité si waaw bu kee bu bu mbali eh, naka moto mbalit amee ñu ca gën moom kay nag buubkati mbalit yëpp kansul seeg area kansul yaa dee buub moom waaw kay waaw léegi-léeg nga dégg ñu ne kër sàngam mm-hmm. ña lakkale ñu génne ay bagage jox leen ah moom kay rawatina sax de ci kaw gisu noor bi amee ci gën a a ñoo gën a mën a waaw lakkale lakka yu métti ma moom lakkale yu métti nag lii hmm. ah, hmm. su ah council seeg municipalité yi hmm. du bari ngay neenal seen i élection maam nañ seetaan mbir kat dëgg dëgg booy xamee ma ko woon noonu waaye lii nii kay nag ni presidential election ak legislative legislation election amee njëriñ. waaw ndax loolu war nañu. warut kay. waaw man kay dama foogoon ne amul njëriñ waaye liñ si wax nii yëpp. ah, ah romb kañ la. wala wala bari weer wi ñëw ci leneen ci fan la. ban weer wi ñëw avril. loolu kay mooy maaj avril rek ca la. fa leen ko desalee. moom kay moom fa ngaa sànni kan waaye li ma njëriñ ko waxee woon ñëpp dégg ngeen ko marché yu ees yi ñoo tabax ah. nee na ci gën meew yaa ci meew yaa ko tabax hmm. ah waaw léegi nag lu tax ñu ne élection yi di lifi nii ñu bëgg ko doyee daal ñàkk la ko ah, fay wax nga fi lu am solo de am na njëriñ jóg leen kat dem jéem a dugg ci dëkk wax nit ñi bàyyi leen damyee bi tey bàyyi carte gi dem wax nit ñi noo ko tuddee c'est ça local local autorité na ko anglais wax authorities tiis nañ jóg dem nañ dem